njiitu Pastef gile Ousmane Sonko amal ab accident ñaara jot ca ñàkk seen bakkan ñeenti jële cee gaañu gaañu yu métti métti loolee nag mu nga xewee niki démb ba mu jógee foofu ca Ziguinchor ñetti kilomètre doxoon képp ci seen digganteeg Nioro ñi nga xam ne daal ñoo ca jot a ñàkk seen bakkan di ab cadreur ak photographe yuy liggéeyee ca jot Jotna Média kenn ci ñoom di wuyoo ci Ibrahima Fall bi li xibaar nag kii di njiitu Pastef Ousmane Sonko moo ko xamle ci ab publication ñu mën ci yëg sax ak tiis mu leen di ñaanal yàlla njéggal ak yërmande suñu borom ci fàttale rekk moom Ousmane Sonko niki démb rekk ci aéroport bu Ziguinchor la ñooñam ya doon jàmmaarloog ay jegeñaale Doudou Ka ba ñax fukk ak benn lañ ca évacué ci hôpital bu Ziguinchor ñi génn àdduna ñu leen di jàllee seen bopp ñi ci jëlee gaañu gaañu nag yàlla yàlla fëgg seen bopp Dakar Buzz di bokk ak ñëpp bile tiis.